Preview. Preview. Preview.

du ma mës a fàtte ñi nga xamante ni aussi ñoo nekk ci prison yi ñu ngi leen di jaajëfal leen ñaanal yàlla mu tegg leen nattu ba li nga xamante ni moo leen fa dugal ngeen génn fa jàmm te dara lu ñaaw bañ leen fa dugalati. ba tey kilifa diine yi ñoo ngi leen di ñaanal mais aussi ñu ngi sàkku ci yéen ñaan bu ko defee ma jox bànn la pétillante mu nuyoo. comme ni nga ko waxee amis téléspectateurs de la Teranga Sénégal TV. ñu ngi leen ni ziar di leen jaajëfal di leen waxoon ñu leen ko diggee woon la ñuy ñëwaay. Mm-hmm. happy night lu bees tàkk bi taxaw nga Sénégal TV moo woo laa tigresse comme ni ma ko daan woowee foo ne. <laughs> yow xanaa doo xool. xanaa <laughs> eh lan la lan la. <laughs> non arrêté leen j'espère que yéen a ci jàmm et que xaar émission bi bu baax. Mm-hmm. Ah. comme niñ koy defee à chaque fois rek nee naa leen happy time nii rek lay demee kafooree ànd ci nag ak ay affaire yu fashion lu ci mel ni musique dina ci am lépp lu ngeen xalaat rek dina ci am donc toog leen di leen jaajëfalaat encore une fois. voilà mi ngi noonu bu la pétillante nuyoo ba pare ak Evis la tigresse mun mun a Sadiga nee naa leen émission bi di happy night doon na émission bi nga xamante ni bu commencé oto dootul daw te avion dootul naaw. te sama wax yi nag ma wax dinaa leen wax ci kanam lan moo tax ma wax ko ndax lu yëngu lu la ko yëngal ko ab doole Happy Night nag euh, tous les samedis soirs à partir de 22h lay am yéen ñi ngeen xamante ni nag euh, yéen a ko moom mooy ñi nga xamante ni yéenay def mariage cérémonie bu mu mënti doon anniversaire nee naa la ak anytime yi ci réew mi nga xam ne lu moo ko yëngal ak yéen ñi ci seen école di def seen lu mu mënti doon ci fête rek su ngeen ñu woowee incha allah dinañ leen bàyyil benn numéro commercial ñu ñëw yëngal foofu ba mu neex. ba mu neex ah. day yëngu day yëngu de. waaw. Evis nga ni. <laughs> day tëgg sa bopp day tëgg sa bopp. dafa leer de dafa war a yëngu. dafa war a yëngu. <laughs> te mooy te mooy yoon nee naa leen bu ngeen ñu wóoloo rek ci seen i événement ak ci seen i bés bu boobaa du ngeen ko réccu boobaa du ngeen réccu li ngeen ñu doon woowee ndax nee naa la. teraanga yi ngeen soxla ñun waa teraanga Sénégal ak émission bii di Happy Night ñun rek ñoo leen ko mën a jox fii ci biir TSTV ñun ñoo ñu ko yëngal te dañuy yëngal ba mu neex. trio ngi mi ngi noonu trio de choc ah, mu naa Sadiga. doy waar Banna la pétillante. foofu toj Evis la tigresse kon wóolu leen ñu boobaa di ngeen ko réccu waaw su ko defee nag euh, am na lu fi jotoon a xew muy la ma doon def tànn bér bu rëy rëy foofu les cité lamin ah. Euh, suñu benn naataangoo fii ci kër gi di Rama Gueye yi demoon na dem jëli ko léegi nag dañuy àndandoo ensemble dem découvrir tànn biir boobu bu lama bi naka la fa demee woon après ñu ñëwaat ci plateau bi. daal di gën mi fi ah. waaw xale yi ma gis tey nii ah. <laughs> fii daa dara waaw am nañ ay invité nag am nañ ay invité ci kanam tuuti suñu invité dinañ ñëw boobaa di ngeen xam ne xale yaa ngi fi. incha allah yaa ngi fi di def lu doy waa ci Thiès. ma di leen wax que ni bu ñu ñëwee muy en dehors de Thiès yéen ñëpp di ngeen leen woo incha kon bu yembee rek waa ah Lamine wala muhammed euh, ngeen indil ñu tànn beru lama les bu ko plateau happy night dina neex. bonjour chers téléspectateurs maa ngi leen di nuyu kenn ku nek ci touram ak santam di am contentement di leen retrouver comme nuñ koy défé sa su né nee naa fii nii si Teranga Sénégal tay nak ñu ñëw fi nga xamni moy rond point euh rond point hôpital régional ci tali Karo bi ñu seet ki nga xamni moy Lamine Ndiaye mo fi mayé li nga xamni moy tann tànn biir dama né Lamine Ndiaye kenn doot ko présenter di kenn artiste la nekk si dëkk bi def ay baax baax. dañuy daal di dugg si biir rek xool parrain yi xool marin yi xool xale yi li ñu sañse ruube jaxase daal di ñibbi su baaxee rek ñu daal di dem. voilà mi ngi noonu nag ah Lama yaakaar naa ni yëngal na si talamin foofu la ci tal tali karo bi ah Rama Gueye def interview boobu noonu. waaw ah tànn bi doy na waar de. tànn beer bi kay wàcc na. xam nga lii nag mi may fàttali samay jamono ba may gën a nekk ndaw ak maa bëggoon sabar. groupe la ñu woon. arrêté te dañ daan fiif lu doy waar. ba ah. ba léegi bàyyi ko ba léegi. gis. mun naa si yow tamit ban idée boo jaay la ba doon yëngal fii nga. acca boroxe ko <laughs> gis nañ la de mais rama sañ sa na ah, waaw def na waaw tenue traditionnelle tubaabe na wax bu jaar yoon mm-hmm. mais lan ngeen xam ci tànnibéer bi tànnibéer bi doy na waar de euh, Munaas Lama Njaay dafa nekk nit boo xam ne nii dafa mën li muy def macha allah dëgg la te doomi Cees la mm-hmm. doomi Cees moom foo ko fekk day am jom mm-hmm. gëm boppam wóolu boppam dëgg la waaw Lama moom zéro faute yàlla ko yàlla Lama mi wane en ce moment. non bu La ndax ni fi mu ne nii euh, événement yu bëree bëree bëri munuñu ko wax te Lama ak xadi mu stable teint noir man xadi damaa neex. dafa mën ah Evis gis nga jamaa noir bi. ci côté lamu ah te xam naa suite bi bu ñëwee la ñuy gën a découvrir lamu taasu. damay ragal sax summi bi bi mais ak tànn biir bi yéen gisu leen ni TSTV war nañoo war a mën def benn tànn biir bu doy waar. yii boobu moom dañ koy. bàyyi ba invité suñu yeneen naataangoo yi nekk feneen. loolu le 8 mars. ba ci waa Dakar en dehors de Thiès le 8 mars waaw. ku ko organisé wul ma organisé ko. fii ci TF TV. fii loolu waaw loolu ah, loolu loolu temps la de. <laughs> Ah, non loolu temps la. war a boobaa traditionnel la ñuy woote 100 pour cent. bon day seuk seuk seuk qui bu ko mi ngi ah, la ci tali karo ci de mhm. dem nañ fo xol ambiance té qui suite bi dañ koy mhm. bu ñu fofu dañuy dem ci événement mass attitude bi mi doon def tamit bi nga chaque année mhm. daf koy def nga kaw ah. nekk lu am solo Evis moo fa demoon bu yembee rek ñu dem xool découvrir tenue yeeg yooyu yaa ma gën a xam modd lañu woote di en Evis keroog foofu wàccoon na

voilà mi ngi noonu ñu demoon nag ci défilé de mode bu mag boobu nga xamante ni mass attitude moo ko doon def ah Evis la Tigresse yaa fa nekkoon donc wax ñu lan ak lan. lu fa xewoon man ndax gis naa fi ay tenues yi nga xamante ni moom yaakaar naa ni xam nga dafay am solo suñu doomi réew yi ñuy fësal yenn yi nii. xam nga li la ndax dafay baax jaratul ñuy dem di jënd ji ay prêt à porter wala di jéggaani suñu réew di dem di jënd ji feneen ndax am nañ ko fi mel ni maas gis nga tenue yi macha allah di bu la ñawalee ba tegal la day mel ni prêt à porter wala importer la te fekk na moom moo ko def mooy ki nga xamante ni moom moo ko fabriqué. donc c'est à encourager euh, ñun lii la ñu bëgg suñu ndaw réew ñi ñuy fasal fësal seen yi ñuy def xam nga li dañ daan dem ba di ah, di ndaxte boo gisee sax euh, défilé bi mhm. da ngay yaakaar ne lii prêt à porter la mhm, dëgg fekk na ne tailleur moo ko ñaw mhm. te li ci gën a neex mooy consommation locale la ñuy def fii du benn boo xamante ne dañ ko importer lépp fii ci Sénégal lañ ko defee doomu réew mi euh, daal di koy ñaw mhm. jël ci def ci exposition bu mel nii mhm. daal di organiser défilé bu toj macha allah macha allah kon xam nga keroog bi nga demee ci affaire yi réccuwoo ko de non des fois nga dem ci défilé da ngay réccu loo fa daan demee mais xam nga lii ak ni ma ko gisee macha allah da ngay nekk à l'aise en plus da ngay da ngay da ngay bëgg ndax dafa nekk li nga xamante nii suñu doomu réew moo ko def autant boo daan dem di défilé ji da ngay xool ay dañuy indil ñi nga xamante ni nekkuñu suñu réew ñoom ñooy ñëw proposé ñu seeni tenue bopp mais bii nag c'est eh, dafa nekk li nga xamante ni nii beneen affaire la suñu doomu réew fii toog fii euh, défilé bi dafa dafa

parce que boo gisee maas xëy na tur bi moo rëy. Mhm. waaye xale bu ndaw la mu am jom loolu tamit. Mhm. ñëw ba Thiès gëm ko ne mhm. pourquoi pas ma defee ko fii. te mënoon na dem ba Dakar wala yeneen. mais au contraire moom dafay dem Dakar. ak Yenen région yi. ut ay personnes.

damay tiit man parce que yi muy yi muy yi muy ñaw mhm. franchement euh, danga naan du du nit moo ko defar dangay foog ne importé et pourtant consommé local la ci réew mi lañ koy defaree mhm. maas yàlla na jàmmam yàgg suñu borom euh, Euh, saafaraal ko. Mhm. ndax ndaw la te ndaw mhm. moom boo nekkee ci yoon. Mhm. lu lay tëkkatal dafa yomb waaye boo amee fula rek da ngay jàll. waaw loolu dafa leer sant daal. ñu sant ko gërëm ko Mass ah. laf cat en tout cas kontaan nañ ci yow fier nañ ci yow Mass di la wax bonne continuation fi nga teg sa tànk foofu la. nee naa la ñenn ci ndaw réew ñi buñ dee def leneen li nga xamante ni dëppoowul ak. suñuy li nga xamante ni la suñu réew mi di laaj nee naa la ñeneen ñi ñoom ñoo ngi xool nu ñuy daanee seen doole di motiver seen yeneen moroom pour ñu am jom góorgóorlu xam ne loolu rek moo fi ne ah àdduna moom amul secret nit ki gëmal li nga gëm rek ah ku yàgg ci teen baag fekk la fa bu ñu jógee foofu nag ah macha allah xam nga nag dafay baax bu ñu toogee fii gars yi di ñu xool ñi ñoo ngi naan ku jaar ci bopp bi ñii naan ku jaar ci sañse bi sañse bi nag <laughs> maa solul sama bopp parce que man du ma dem di jëndi fenn ñëw naan diw moo a solal. ku am fulla ku am fulla du ko def. léegi nag euh, dafa am sama benn sœur bu nga xamante ni nii moo nekk ci Mbour 1. Mhm. ñu naan ko Mami Barxaam ah. Mhm. Mami Barxaam la nekk ci Mbour 1 di def lu doy waar macha allah sama bopp moo fi jaar ak maquillage bi numéro téléphone am di 77 137 ah jël leen 77 137 81.

de choc bi parce que loolu moom damay neex su ma sañoon yu baax yi ñoom it danga leen ciy génne rek foofa toj du noonu bu ñu jógee foofu nag dafa am ndaw yi nga xamante ni nee naa la am na ñi nga xamante ni ñoom yàlla def na li muy def ci ñoom ba noppi muy lan yàlla def nañ seen promo jàll na ba noppi xam nañ leen ba pare uh-huh. hmm? donc ñun TSTV nag dañuy innover muy lan dañuy xool ndaw ñi nga xamante ni dañoo am talent muy ay c'est des talents cachés ñi leen xam bëriwul ñàkkul ni am nañu leen xam parce que bu dee benn nit rek wala ñaar dinañ leen xam waaye ñun TSTV suñu innovation mooy lan dañuy xool ndaw ñi nga xamante ni dañoo mën li ñuy uh-huh. waaye dañoo nekk ci ruq bi di jàng di fayit doon ay bañkat am jom loolu nangoo liggéey te loolu bu ñu ko gisee ma ñun man dafa may neex surtout ci émission Happy Time bi ñuy fësal loolu may ndaw yi ak jeune talent yi opportunité àdduna xam leen ba tax na tey kuñ naan Pape Bongo ak Satu Bool ah ñëw nañ fi nekk ay xale yi nga xamante ni nii macha allah ñoo ngi ah, faatu ñoo ngi satu ah. faatu la. Mm-hmm. faatu la ak Pape Bongo. Mm-hmm. nekk ay ndaw yi nga xamante ni nii ñoo ngi bay seen waar mm-hmm. di def lu neex a neex a neex tey nag balaa ñoo demaat ci lama moom foofu lee ci hôpital régional ak ci mass attitude dañ leen di dugal ñu ñamal ñu. xam nga loolu dañuy neex ndax ñu ñamal ñu lu doy waar ndax Evis mii damaa gis ni yaram bi fi mu ne nii non loolu Evis li ma échauffé woon pour préparer ko ci émission gis naa loolu noonu la demee Evis yaram bi dafa fasu te man gëm naa ni bu xale yi ñëwee rek ba rëkk junjung yi surtout fii day wàcc de ñu ba rëkk na xale yaa yéeg tama gi nag moom dañ koy pause mais fi mu ne nii nag moom bongo yi mënul ñàkk sat waaw léegi bu ko defee nag damaa bëgg ngeen jàll si ndànk ñëw nii ngeen damaa bëgg ngeen ñëw ñëw nii sama ginnaaw mm-hmm. ñu yëngal gësam ba mu neex ndax nee naa la ak happy time happy night yai Yai boi nyanal mai lao di sogodur Edi tragula ubur Taru ai Yai nhà nyanal mai salaamu maaleykum ñoo fi ñëwaat nee leen salaamu maaleykum ñoo yegg si nee leen salaamu maaleykum ñoo yegg si nee leen ak xàppi naa xale yi xàppi booy sax lépp naa is nga naan ku meer tam dañuy bégee. ñun dañuy bégee. man du ma dem. fii may nelaw xel ma dem ci xale nañ nampalante ku nekk nga dendal jox ko sa ween muy tokki tokki eh, ku mer bokkoo kuy waaja mer bokkoo ku ñu dagg sa si kaw nga ree fosu la ee eh, nañuy ree ay nañuy ku ci mer dem ñibbi ee eh, ñëwal moo bis bi dafa tombe sëñ bi di ree ay na di ku si dem ñibbi way du dem fii lay toogee happiness kii téléphoné ay waa noppi kuy waaje wax ku dem bay wax ba seen papa nga taxaw na nga ne bat sinon ma door la mat man su ma doon def tap sama jabar du tegge ta fii taasu ñu ñëw fii ci TS TV loolu daa ñu daañuy daal. la wax nga de ku sari ribaay doy doo ko la xaaral ba di ba ko dugu dugu tool taxu tey yem naa nga la yegu yaay maa la mën kenn du ko wax ku nekk xam na kii la ko dul nangu mooy yéen asaaloo. asaaloo eh asaaloo. xoolal suñu bés bi dafa naa yeewu naa dama doon nelaw waaye yeewu naa mi Fatou. daa ko émission yow lan la. do do maa ngi xool maa ngi xool. waa mi waa diiru dëgg. yow lan la Ah. waa ñun liñ doon waaj bu ñëwee mbaa munaas kon fii doonul woon waaj. munaas te li ci gën a neex mooy da ngeen koo oyofal dégg naa. waaw ah d'accord bàyyi leen ma ma réglé xam nga tey damaa kuul. non waroo kuul de xàppi naa xàppi naa laaj. non damaa kuuloon mais ñii booy yi yee nañ ma. sa yaram da nga koy bàyyi ah fu mu nekk nii kañ dëgg doon. waaw groupe bi ñëwul de. marque bi bongo bee ñëw nii mais bu groupe bi ñëwee fi dina mel ni nga ne ma natt góor jigéen. waaw waaw ki la bëgg ba bëgg laa. nga ne ma te bëggoon tuula. dafa mën ci defit moo a bëgg la bëgg bëgg laa. te bëggoon tuula. la ko mën ci defit du ko gis ndax mbajeel dalay xool. bëggoon mi ci meer xool. fi yow daal bëgg naa laay. yow nag la bëgg naa.

waa lii xanaa lii tax groupe bi ñu tuddee ko groupe action xanaa lii moo tax groupe bi tudd ko way sax ah, en tout cas ay di nga leen invité réccu loo leen doon invité man de damaa nekk nii man li ma ci gën neex mooy dama fee gisoon koo xam ne yaram bi bànn dafa fas non non déggu ma loolu fu nekk dañ koy fàtte nii mooy xàppi naa de mooy xàppi non xàppi par par force ànd ceeg Pape Bongo ak Fall. sama rakk yi nee naa leen yéen yéen ngi bay seen waar ba mu bu baax sax macha allah. xool seeni mag ay caacoo ay lama mi fi jóge léegi. Mhm. ñoo xam ne ñoo ko doon wane suite bi ñoo ngeen koy ñëwaat wanaat. Mhm. Ah? xam ni yéen a ngi mhm. balaa ñu lay. te aar bi. potu ndaal la. waaw da ngay naan rek jox hmm? Hmm? sa ne bay sawaar yéen a ci yoon bi yal na leen yàlla lafal cat. en kontaan nañu de. Hmm. ñu xol sedd na lool. yaakaar naa ne lii moom dañ leen di invité waat. ñii ñii dañuy ñëwaat sabar yi gën a ñëw bool yi gën a ñëw. ko defee foofu yëngu. tey première numéro Happy Night la. dañuy nuyoo rek. di doog a door. leen wax ngeen dalal ñoo ak jàmm salaamaaleykum foofu rek lañ toll ne leen ñu maaleykum salaam ba deuxième numéro bi ñëw du ngeen ko réccu. xam ne lépp ah? dëgg ko defee nag euh, Satu looy wax. Ah, Fatou looy wax. maa ngi nuyu mhm. ci ne sa sant. Mhm. di kontaan ci sama yaay ju baax jee. Mhm. nuyu sama papa. di nuyu sama yaay ku yi. nuyu ñëpp. nuyu képp koo xam ne daal kii la yaa ngi seetaan waaw ak sa famille ñëpp. ak fàtte waaw waaw ndax xam naa ni fi mu ne nii moom bu ngeen jógee fii dina am ñu bari ñu leen di woo waaw bu leen neexee sax jox leen numéro boo xam ne ku leen soxla rek mhm. ci boobu lay woote foofa toj ndax ñoo ngi xàppi naa it ñoo ngi teraanga senegal TV nee naa la jeune talent yu am jom yi nangoo liggéey. kuy soxla mën nga ñoo woo ci 77. 822. 04 65 77 822 04 65. dëgg la loolu rek ñu ñëw yëgal foofu. loolu loolu loolu dafa leer lancement lañ def nii. Uh-huh. ay bu ñuy def dëgg. xam nga nag eh, dëgg la te groupe bi ñëwul. bu ñëwoon fii wàcc de. xam nga nag feccum liir bu neexee nday jaay jàpp ci mbagg ya mm-hmm. DCA Anita. Mm-hmm. Mm-hmm. yàlla na jàmmam yàgg. waaw DG Pape Thioum. yàlla na jàmmam yàgg. Bamba directeur des programme ak tout l' bi nga xamante ni nii ah, mu ngi fii ci TS TV na seen jàmm yàgg. ba ci PDG Loum ndax xam nga ni euh, am sa initiative ñu nangul la ko mhm. jël émission bu doy ne happy time ci heure bu baax bi nga xam ne tous les samedis heure bi bu jotee mhm. borom kër yaa ngi ci seen kër xale yaa ngi ci seen kër fas yéene jàkkaarloog waa Teranga Sénégal TV ñu teral leen ñu ne taamuñu ku dul yéen hmm? présenté par Fadiga mu falumi fàllu mi sëñ Abdou Karim Mbàkke borom mal axlaa borom kasura jam bi borom nindi <laughs> Mbàkke Balla yalla nga fi yag lol te wér te sa bay bi sëriñ fàllu Mbàkke yalla yok leeram te taas ñu si ñu ne deet na way ak bànn mi nga xamanteni mo nek sama droite la pétillante digeen bu mën góor nee na yaay ah, Cheikh Ibra lol dégg loolu maximum toj na barki borom Touba ci ak def ci <laughs> ñu ne deet na way Evis la tigresse nek sama côté gauche ci laa ci Grèce. mu ngoog leen ma Fallou Galas dama koo bëgg ci. barki borom Touba Sëriñ Fallou. ni ko sëñ Fallou mooy ñaasi kanam. salam salam. léegi Alaaji Fallou mooy ñaasi kanam. salam salam. Wow. Hey, wow. présenté wu. présenté wu la kan nee naa la. Mhm. fii nii dafa waroon wàcc. guddi bi sax dañoo ñëwul. Mhm. mais li lancement la nag film bi ñëwul. dafa leer ah, ku ne xam na ne ñax ak salade duñ benn ku wedd bi ne garal. waaye ñàkk tam fu mu laa ko dijoo sos ko togg a sori. Eh. la sigresse nee naa la boo dëree mu di la metti boo geesoo yem ci muuma sa xel war dal te dugg ci kër ñu pes nga ni messi du dégg tubaab xol bu jeex la Pape Bongo ngi nii dëgg du neex barki yonent bi ak sama rakk mhm. ànd ak Fallou groupe bi après dina ñëw Fallou Galas Baye Mbène a ngi nii ah, barke ñoom unité bi maa ngi nuyu ñëpp nag di ziar ñëpp képp ku may seetaan di la bëggee fan si yeeg soppe yeeg ñëpp képp ku ñuy seetaan daal maa ngi lay bëggee di la wax salaamaaleykum wa rahmatullah musique daw man damay xaru fii kii la. kii dafa doy waar. bu danse la ah, dafa danse de. koo xool rek ay lok sama xam nga daa doy waar ndax boo ko gisee ci ginnaaw mi ngi def yoo xamante ni ah. wëyu la léegi bu ko defee xam nga bëgg nañu kontaan te doyaluñu. ndax am naa ne sama suñu bokk téléspectateurs yi ñuy seetaan doyaluñu ci xale yi. Mm-hmm. mais ba tey dañuy delluwaat ndànk foofu la nga xamante ni mooy si talamin. waaw mm-hmm. ah, daal di xool surtout tànn beeru lama boobu nga xam ne moom la woote woon ànd ceeg rama ñu ñëwaat foofu toj ndax yaakaar naa ni yéen demagu leen de da ngeen ñëwaat yëngal gësam ba mu neex ndax nee naa la xàppi naa it mooy émission bi nga xam ne bu commencé oto du daw te avion dootul ndaw te instant sax dañoo tëj yoon yi 23h kenn du jàll. déggal mu naa foo ne. nga ni ma xanaa doo xool. lan la. kon lan la Lamine bu yembee ak Mouhamed rek ñu demaat foofu si te Lamine dem xool tànn biiru Lamaga ak xadi xadiloo foofu toj. waaw monsieur le maire xadiloo jamaa noir. Hmm? monsieur le maire. monsieur le maire nañ ko dugalal fii ah waaw moom di jël naa lu ñuul ma la waa de. waa loolu bu bu loolu bu ñu ñëwaatee. bu ñu jàllalee loolu. nga gis lu garaaw bi jël naa keroog reetaan yi ma doon reetaan xaqataay. bàyyi ko foofu lampe <laughs> Line ma doon reetaanee doy na waar. doy waar ah reetaan yi man dina ma def ko gën. dama dama ah? de. ah DJ Line daal daal doy na waar. bu élément bi yombee léegi <laughs> ñu dem si télé bi ñëwaat. ngi taxaw nag ak ki nga. sama séeréer ci kën bi di nuyu Lamar ak orchestre bi yëpp di rafetlu ak yëpp nuyu sama xarit Moussa Lo ndax yàlla bu defee ñu am link ak. kontaan parce que jeune la te bu lay dem ci kanam la jëm Lamar dafa baax. caméraman bi ak sama animatrice bu ñaawul bi di sant yàlla di julli ci yonent bu tedd bi di sant suñu ñaari waajur di wax jërëjëf xa Xadim di ñaanal sama yaay fu mu tëdd yàlla na ko gënal fii sama papa fu mu tëdd yàlla na ko gënal fii di ñaanal sama taw nday bii nga xam ni nu ma mel moom la moo bàyyi ak sama sago dimbali ma te yàlla tax muy Modou Marème du ma ko tuddee tudd naa famille bi ma bokkal yëpp ba ki ci gën a ndaw di ñaanal waa Thiès waaw mi ngi noonu ah demoon nañu foofu le nga xamante ni encore une fois mooy si talamin tànn beeru lama gi ah àndoon ceeg rama yaakaar nañu kontaan nañu nag xam nga yii dañ koy soxla te dañ koy nam man tànn beer sax dama koo gëj a gis. waaw xam nga lii dañuy dekkal cosaan te ku ne ak sa cosaanu réew ak sa aada. dañu dañu xam ay cosaan ay tànn beer ah, ay fuural moom xam naa amat mais yooyu dañ kaa war a dégg nag naa fuural yow ay fuural dañ ko war a dekki la ah dafa neex de. fuural déggal ah, loolu. complexe nga rek nga naan ay. Ah, baalu baalu baalu kii ay baal poussière baal poussière daa war a ah, am mais fuural dakaar moom ci tali yi lañ koy def. Mm-hmm. ay comme ça jël paan def ci omo ba mu xëba xëba xëb rek daal di muy fuur. muy fuur muy fuural muy loolu dama ko namaat. ay temps booy xam nga ay décembre woy na temps booy. bu boobaa nga gis ku weex. ku weex tàll waaw bi laay dugg. non weex ne da naan ku pënd ku pënd. ku xëpp. xam nga yaa may yëngal xam nga yooyu dañ koy man loolu laa bëgg damay man wax ji lan moo ma ci jaaxal mooy gis nga ndaw si ni mu toll. ma ne damaa yaakaaroon ne lëmbal genre bànn yee ko moom. waaw. nga genre bànn yi nag. Ah. ah parfois nga teg leen ñoom dañuy yëngatu <laughs> nii rek dafa nga teg sama genre gi. non nga teg taay fin nga lëmbal ñëpp dañoo yaakaar ni. fes yee koy mais ndigg koy ndigg koy ndigg la de waaw ndigg koo xam. waay la yëngal. non te sànq teew defal naa teew sànq gi nga xala xolama xale bi xolama xale bi rek ndigg li ndigg li. waaw waaw jërëjëf déedéet pas fii. déggal lii déggal lii xam nga lii. kii ma nekk taay fii. non déedéet yow yow yow ba. te li nga ci xamul kii saay su aas la aaf waaw aaf yi la bëgg monsieur le xam nga ne aaf dafa bëgg Taïfin. te moom Taïfin la mais moom daa bëgg Taïfin. waaw waaw eh, moom contraire lu la. Ah, moom ndëkkate yi lay wër. kooku sama lu am solo. ah yaa ngi wax naan ma foofu nañ cap foofu parce que bëgguma koo feeñal kii su ma ko feeñalee rek réew mi day yëngu dama koy suturaal. xam nga deret dafa foor Mouhamed man damaa mujjee bett <laughs> moom démb démb damaa dugg mike yi kooku naan di muy présenté mu naan ko sama sama jëkkër xaw ma sama jëkkër la uh-huh. ma ne ko ah yow tamit ci nga bokk mu ne ko kon man mii ma ne ko man de sa ex jabaram laa woon mu ne ko muy Mohamed sa xol bi nu mu yaatoo noonu moom ay ay kenn danañ yor kii train la bala de parce que may dégg nga naan Mouhamed pare na. non non commencé infidèle xaw ma nu mu ma demee. ba daal cœur brisé baadu. mu bañal loolu nag bañal loolu. ah Mouhamed man dafa maa mujjee jaaxal de xam naa ne xolu car rapide la yor. Ah. sama waa ji. Ah, mais as moom sama as la loolu. la ah, kii ah ba as. te instant yi dafa am koo xam ne day day day Sadio Sadio as lay kii di <laughs> ah waaw baax na moom tendance. mais Mounas dama gis renfort fii de. renfort waaw dañoo ñëwaat équipe bi dafa ñëwaat dafa ñëwaat macha allah xale yi copie waaw Tafa. ak may jun séeri ndey bébé. nga ni ma laaj. waaw dafa am nga ni may jun séeri ndey bébé. séeri ndey bébé. ma ni ndey bébé may jun nag nii di la bëgg. fii lu fi waay am day leer. waaw man jombi ma te waa xale yi. non cas bi danse la nag. cas bi danse la mais borom borom borom chaîne bii nii. présenté ma ko parce que kii daf ma neex. Eh, yéen de leen nar la rayee TS TV ndax xam naa ne li wax ji ngeen wax dañ koy yóbbu fi man kaa rek laay toog. no àddina ah, moo leen di seetaan dëgg du neex fu mu nekk nii moom seen xol yi bu leen yeboo kànnaare ko. waaw damm caabi ji sànni géej. waaw te xam ne pare ngeen. waaw ah. ah am na de ku ko fi defoon di jëlaayam boole ñu bari. lamb jéeg ay yow ndeysaan man layen moom dama koo bërgal xam nga tax ma bërgal li janaay courant war naa coupé ñu def ko man kenn gisuma may suux di def ay affaire nekk ba layen bi pare bu may reetaan reetaan yoo xam ne may jooy layen du nit man layen war na def ñëpp loolu ba mu def ma ndeysaan du nit layen war na def ñëpp loolu ba mu def loolu loolu moom war nañ ko ma mujjee bett mais garaaw xamul tax wala mi ngi reetaan mi ngi ñu naan nag ndeysaan man dama ko jàpp woon nit ku sérieux nekk tey mu sérieux musul sérieux waaye garaaw man laa su ma defee lu ñaaw wala mu di ma def nii yi di ma chay di di ma saboté bu ma daal di xool Lamine ndeysaan sama xool dafay neex ndeysaan mu ngi noonu ana Lamine boo may reetaan ma xool Lamine rek Lamine di ma bégee sama xool dafay neex ah Lamine waaw Lamine maa ngi lay jaajëfal lu bëri bëri bëri sama waa ji ah moom ñoom ñooy yaakaari Sidi Fagay Demba mi ci Jawar borom bone carré. waaw si Demba Jawar Ali Boy Samba Michel. xalifa yaay dama ñaay. ay ay ay. waaw man la jàng jërëy na. lay lay jërëy Seexu Tijaan ci Babakar way ci Babakar ku ci zaga ci Babakar ne ko innal manayila takmi mil masaya wo ya way manayila e takmi mil masaya qul innal manayila takmi mil masaya wo ya way manayila waxoon ey sama rasul woon sama baay booy ku ma wati sama photo ma wisi la ku bëgg sëriñ way bakari karamar ne ko aram lo kumba caam bu kumba pienda paate pienda bokku joon lay lay lala naa leen bari xam nga sama yaay da di taalibe sëñ Babacar si bëgg ko lool te boole ko ak lenn moo tax booy wax si ñi sant si sama xool bi day bëgg waaw di ko may ame ndaw sama yaay jooju nga xam ne feccum liir bu neexee nday jaay jàpp ci mbagg yi te mun naa say digga boo ma xoolee xam ne sama yaay jàpp na si samay mbagg macha allah si man xam nga bu ñu wax ci yaay te wax man ko rew waaw méttee méttee métti ba ñëpp daw yéen rek la ñuy gis moo tax ma ne comme jaar ko di jaay sama yaay aw moom laaj woo Fadiga yow la amee lii la yàlla duga <laughs> kon wéral amal jàmm yaayam naa yaag ah, ñoom baake rek xale yi madame Fadiga yàlla fa jàmm yaag ak képp ki nga xamante ni yaay nga rek doon bañkat waaw dara ñoru la lu dul njaboot waaw sonn ngeen njaboot yàlla la bu ñu séddale dara ci seen ginnaaw amiin yàlla ngeen fekk suñu lépp bañ mu def suñu dara amiin waaye dañu war a gore nag fu ñu ne yaay ni baay ni baay waaw yéen ñu tànn suñu yaay <laughs> ba tax na ku ñu xool xoolaan ñu kenn du yéen. kenn du ñoom. yal na seen jàmm macha allah gudd fan lañ leen di ñaanal ak fekki tal. Mm-hmm. ngeen fekki suñu lépp ba suñu yéene ci yéen ñu mën koo àndal incha allah. ba tax na doom da démb ñaa koy wax. loolu waral sori ñu ko def. mais est-ce que xam nga ni Mounass cato ñu naroon dugg. <laughs> waaw li nga mujjee def ay waru a lii dal la la ah, ilaha illallah sama papa Ablaye mi nga xam ne dëgg du neex moo ñu bàyyi ci aar bi ñu ci tette waaw diñ ci jàppale lu ma wax ma nuyu ma ko rek def naa erreur maa ko ak sama tante ji ñaawul gi ca kër gi Mariama Ba macha allah ak Jimbe Kumba dëgg du neex waaw loolu am na solo bu ko defee mhm. fii bu ñu fi toogee mhm. xam nga nit amul lu say mbokk waaw du dëgg waaw rawatina mbokk yu la yëg sa foola waaw mbokk bu la xeebul teg la place dafay baax foo toog di ko sagoo. di ko sagoo ma tax na samay rakk mes frères et sœurs. waaw naaya madame Gom. waaw yaayu sama doom bébé Kiné. waaw ak Nathalie. macha allah xëy Fadiga sama rakk. waaw ay kumba gàmmu caat. waaw caatoo caat daa yabaate. waaw waaye sama xarit la ah caat nga. mais foo fekk munaas foo fekk foo fekk caat day day day day nuru caat. ci loolu damay dem ba sama tataakura suñu caat suñu caatu kër. Eh, eh, eh, kooku munaas dafa dafa dafa nekk koo xam ne nii dafa gën ci man baax si man. rëkku ma de. te sama tànte la sama mooy suñu caatu kër yal na jàmmam yàgg yaay ma xeeñ njaay doom ci tàkko ndaw ndaw sàndee ne araw faxa borom du ko kenn du moom kenn du moom munaas ah, bu fii la ñuy fanaan ah, mbokk dafa neex waay dafa neex yal seen jàmm yàgg macha allah loolu mhm. am solo moom ci yaay mhm. Mhm. des fois di nga gis sax comme ni ma koy faral di waxee yaay daal di lay jur mm-hmm. sànni baamu beddi dëgg la waaye ami wadd mm-hmm. wadd daaru njaag fara wadd njaag waaw yow nee la mestax ñoom mm-hmm. mooy sa papa ah waa Liberia kooku di mère Hawa Braya nekk sa yaay macha allah ndax damaa gën damaa riche ndax la ma boole moo bëri dëgg du neex yaay maa ngi lay sant di la gërëm di la jaajëfal bu baax a baax di la ñaan euh, wér-gu-yaram fekkee tal dal rek incha allah ba ñu màgg di leen teral ci barke sëñ Muhammad Fatou maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal nag bépp yaay nag dëgg du neex xam na ne dafa sori ci xol waaw loolu loolu loolu non arrêté xanaa doo xool lan la doo xool xanaa du ak Fatou mii nga xamante ni mooy groupe action waaw action ndax yaakaar naa ne ba rek àdduna xam na ne ay ndaanaan ngeen te ndaanaan dëgg bu dee der rek ñu xam ne kii ndaanaan la te gëm naa ne lii ngeen di def dangeen ngeen koo judduwaale da ngeen koo doon mhm. yàlla na leen ce que duñu mayaat mass attitude bi dem xoolaat mhm. surtout foire mass attitude boobu défilé do mode bu mag boobu nga xam ne chaque année daf koy def mhm. ñu ànd ceeg mass attitude foofu daal di ñëwaat ci groupe xale yi

dinañ leen bàyyi numéro boo xamante ne nii dangeen ngeen ñuy woo. Fadiga day ñëw. wala la pétillante. banna wala la du neex. bu mm-hmm. wóolu leen. rek ku ñu wóolu de doo doo ko defati. ndax xam ni rek dinañ xam ni waa teraanga Sénégal ñëw nañu ak i teraanga te suñu teraanga yéen ko moom. Mm-hmm. ba tax na bu yembee rek ah. waa régie ngeen indiwaatal ma. ñu judd àndoon ci Elvis la Tigresse dëgg du neex dem ñëwaat léegi lëqaat mhm. junju ñuy ba mu yëngu ànd ceeg action xale yu yi ñu àndal ñu meer kenn du ñëw macha allah ah waaw xale yi bëgg nañ ci yéen de Applaudissez-les. Applaudissez pour l'élégance de nos Élégance de l'esprit, mais dans le garçon. Nous sommes là, en train de côté. Merci à vous. Merci toujours à nos président de la République, mesdames et messieurs, d'acclamations, Fils Sachet, des applaudissements pour Fils Sachet de Léa. Encore plus fort. Et à 26, c'est les jumelles, les gars. C'est les jumelles, ils ont été, c'est

mais bi def il a bien choisi. Mhm. ndaxte comme ni ñu koy waxee li ngay jéggi. di mhm. dem di uti. am ci pourquoi pas nga valoriser lolo. te mom def nako à travers li nga xamante ne euh, Thiès fashion show. Mhm. ndax consommation locale la. peinture yi lo la jóge ba ci man kay tamit. utuñu waa design bi wa donc. feeme la daal. waaw mu ngi noonu. kontaan nañ moom daal dañ koy rek dañ koy gërëm encourager macha allah. jàppale ci kanam. Mhm. parce que ku ne maas ne maas bu Evich man ba ma ba tasee moom si bi dama ne ko dama la doon dégg. mais grâce à Evich moo tax ma xam ko te xam naa ne ku baax la. dëgg waa xapi naa dinañ ñëw. te est nga ni maas soxna a baax a baax. gide la bu maas yal na la jàmm yàgg loolu lépp seen biir yëngu yaaw ba xoolee rek dangay di fa gis koo xamante dalay bëgg dalay bëgg waaw dama bëgg da nga baax soxnay maas ndaxte nit lu muy seede ci yow wax na mu koy waxee da ngay xam ne kii waaw du intérêt moo tax mu koy waxee ndax dafa gis loolu rek kontaan mu ne ma ndeysaan yàlla de ay nit yu baax rek lay xamale mu wax ma lu baax ci yow dama jox ma numéro ndaxte ni mu ko enregistré moo baax macha allah maa koy gërëm di ko sant ndaxte tey macha allah maa sax ma naroon a solal mais malheureusement xam nga temps yi damaa dëgg la dëgg la dëgg la macha allah macha allah waaw ma ah. ngay bu baax a baax a baax waaw di wax yàlla na la yàlla gën a jubóoleeg macha allah amiin amiin barkeel yàlla defal leen cat di la xamal ni koo bëgg-bëgg na la ma chérie te xam naa ni sincérité rek moo wóor ah loolu dixième bi yaaw la ça fait des années plus de dix ans boobu ba tey yaa ngi ma jàpp rek te bu bàyyi yàlla sa jàmm yaa ngi ma chérie ah ak sa jëkkër di def lu doy waate maas dinañ solal de incha allah ah incha allah maas dañuy solal ndax xam naa tenue yi ma gis fii moom tubaabe na bëgg nañ ci ñoom waaw te xam nga man waaw te man temps yi ay affaire kaana moo ma neex mu naas ni nga may gisee nii yow xanaa doo góor Bana lala. No. no tey damaa ñëw rek dafa am lu mu àndaale tey xanaa tey da nga naan vitamine C tey waa kii li mu jël mu jël daa grave non am na lu mu jël non tey kay dam man sax damaa mujjee joomi si man mais nag kay wax la man lii laa bëgg de xam nga Evis eh, dafa bàyyi ba après mais xale yi yëngal nañu Evis ndax daa ñëw fas ñii dañoo doy waar te happy night laajul nga ñëw daal di loowu fii dangaa war a eh, yëngu bàyyi suñu yaram mu gilis nah, nee naa leen ba tey dama leen di fàttali ni rek dañuy nuyoo. Mhm. yan bi la teeñ bi ñëwagul premier numéro la. salaamaaleykum dalal leen ñu rek. waaw beneen numéro ñu ay ndaw lañ ay xale lañ. xoolal bu ñu ñëwaatee day neex day <laughs> soog a door dañuy soog a door. neex ñu leen di ñaanal dina yëngu. waaye ñu tamit ñoo ngi sàkku ci yéen ñaan. suñu mhm. waajur yi nga xamante ni yéen a nekk seen biir kër yi. jàkkaarlook ñun mhm. suñu rakk yi suñu frères et yi suñu tante yi ah ñun seen i doom tàllal nañ leen loxo de. leen wax tamit fu ngeen ñu ñaanalee ñaanal leen kër gi nga xamante ni fi la ñuy suturloo nag. ndax boo nekkee ci garab doo ko góor de. da ngay ñaan yàlla garab gi di gën a meññ rek ndax mu muy gën a meññ rek say mbir di gën a baax. donc TSTV ci kaw ca kanam. mais Mounas mm-hmm. euh, dama ne ñun amuñu lu ñu war a tiit wala ñoo ñuy ragal parce que Tata Anta nekk na suñu ginnaaw. dëgg la comme ni nga ko waxee sànq feccum liir bu neexee ndey yaa jàpp si mbagg yi dëgg la te jàpp nañu ba ñu yëg ko dëgg la munaas soutenir ñu soutenir ñu nag taxaw nag ba pare sonn ci émission bi elle est une dëgg la sonn leen di loolu dinañ ci wax parce que am na nit ñoo xam ne booy wax si ñoom doo xam fooy commencé ak fooy tàmbalee dëgg la yàlla na sa jàmm yàgg tata Anta amiin ak tata Ginette dëgg la macha allah waaw waaw commercial. waaw commercial génn waaw moo tax ma ne leen numéro bi nga xamante ni après dina jàll. waaw waaw surtout ko defee ni ngeen jot Ginette. ah ñi nga xamante ne waaw pour fësal gën ñi gën a fësal seen produit yi sax. du noonu numéro bi dina jàll ci suuf sax. incha dina jàll ko defee rek yéen ma gën xam événement yi jàll. yëngal foofu ba mu neex seen événement wóolu bu ko defee. Faat Faat ak Pape Bongo. ak groupe action yéen ñi suñu ginnaaw tey luy dil bi luy dil bi happy night luy dil bi. Maria bu leen ma yëngalaat. luy dil bi dama soo boo xam ne dama kaa woy ki nga mm. bi dëgg du neex. te loolu dama ni bu exclusivité dëgg du neex fii lay jàll. te clip bi léegi mu génn incha allah. Mm. dama leen see bëgg a ñamal nag lu neex. barke ñoom yéen a tiwi faatu dikkal. way wi may way mu jëm ci wàlli balago mu papa jonde sa baay baax rek ngay mën a def ne ko way wi may way mu jëm ci wàlli balago waaw jonde sa baay sax e baax rek ngay mën a def ay waay way wi may way mu jëm ci wàlli balago mu papa jonde sa baay ngay mën a def wayul ma way Baay Faal bi ñëwal Sénégal ey Pape Ngo dafa ñëw rek indi lu bees kon wax leen na saf na safa saf bu saful dara du neex hey na saf na safa saf bu saful dara du neex ñëwal Pape Ngo na saf na safa saf bu saful dara du neex bismillah ma tàggu yàlla tàggu yoone tàggul ñëpp Cheikh Ibra Fall ak Mame Bamba laal li moo sama bopp rek soo ko ñëw wax leen ko nasaf nasaf asaf bu saful dara du neex hey nasaf nasaf asaf bu saful dara du neex wali wali sekk ey bay tubaab ku mu fekk ci mbex mi ñam la ñetti bopp boo fa jugee di nga sàkku say sox ki ñandu ko faj waaye wali sekk ku mu fekk ci seen bi door la ñetti kardu boo fa jugee di nga jàngaati way ki ñandu ko faj yàlla def na ko wali sekk wara di woo eh, tara di woo ee tama di woo doxi woo am nga fulla te am nga maanaa personnalité tantité gisal ak dignité te am nga ci nit wu yaay capacité laaj leen ma lu ma ko nawee ko nawee ma laaj lu ma ko nawee eh, waaw wee eh, boole koog di ba nga tiit ne te dara ki am na cas cas am ca jajas am bambala eh wax leen bamba bambala eh dama ni bamba bamba sama waaji kenn demul bala dugu dugu waaji kenn demul bala xoolal Ahmadu bamba sama waaji ba mu neex ma ne la nu ko dindi la eh, tigre bokko ci ñi maasa bokko ci ñi maasa eh, bokko ci ñi maasa eh, bokko ci ñi maasa ko ko ci ñi maasal ene ko melooni Adji Sarr lu mu def maasa Sonko e ba ñépp ngàpp ko ci nga nopp sa siiru lool ba jàpp la ci dinaa la way waaw dinaa la way e bokko ci neex lu neex du doy. noonu la waroon dañ doon nuyoo rek lu neex du doy. c'est le premier numéro dañuy nuyo rek. yan bi la teeñ bi ñëwul. waaw ba tax na ngeen ci ak Mounas Fadiga. euh ci ak Mounas Fadiga ma ngi leen di jaajeufal yeen ñi ngeen xamanteni ñepp ñëpp yéen a seen biir kër yi. Mhm. di suivre seen émission Happy Night. Euh, mhm. sur la TFTV. ci ak Mounas Fadiga bànn la pétillante.

boo wàccee dëkk bi yëngu. dëkk bi yëngu mun naa si yàlla na jàmm yàgg. amiin yaa rabbi amiin yaa non man kii daf may fay. dëgg <laughs> dama ko bëgg jël li nga jël tey moom laa xamul. waaye comme li nga li nga ko waxee rek ndaxte jàmm ci la lépp xaj te chaque jour moom la ñuy sàkku. Mm. di leen ko ñaanal di ko ñaanal tamit suñu bopp saa su ne ba di ñaan yàlla ñuy mën a di toog fii di leen bégal comme à chaque fois. chaque samedi soir waaw incha allah. à part heure guddiwul. Mm-hmm. rek. Mm-hmm. waaw décompressé mais préparé leen parce que dinaa leen utal ay lépp yu doy waar. waaw waaw bu baax nag dañ koy cabaxal yooyu noonu. man bàyyi ma àppoo balaa lépp. bàyyi ma bii di ñëw. waaw. àndoon ci waa groupe action yàlla seen jàmm yàlla na seen jàmm yàlla leen da ñëwaat ko defee sabar yi ñëwaat ndaw gi daal di ñëw seen jàmm yàgg waa TSTV DG Pape Thioune yow tamit yàlla sa jàmm yàgg Anta Anita la mm. ak Bamba directeur des programmes ak tout l'équipe de la TSTV ñi nga xamante ni ñoo nekkoon waa régie mm-hmm. Lamine Mouhamed ñoom As ak Thiam mm-hmm. yàlla na seen jàmm yàgg ak technicien yi ci kër gi yëpp jërë ngeen jëf cant ngërëm ñeen la leen Durou, Bisou. <laughs>